waaw asalaamaaleykum gars yi ziare waat naa de waaw moom xam ñun moom dañoo woddoo làmmiñ bu ñu noppee dañuy rafle amaat contentement rek comme niñ koy waxee waaw ba léegi maa ngi sama kër ginnaaw bi ñu defee live bi sànq euh, ma toog rek ndeysaan ma am surprise ndeysaan fii bu ngeen ko gisee kanam bi moom kenn dootu leen ko présenté ci si réseaux sociaux yi muy sama grande sœur sama mag sama xarit sama compagnon muy sister Françoise Hélène Gaye wax dëgg fa yàlla déplacé wu gis ngeen depuis keroog jóge na États-Unis ñëw Sénégal mais jamono ji mu ngi woon cees Thiès ak dakaar sori na mais ba mu yégee ni génn naa wax dëgg fa yàlla mu ne Californie nëpp na mu mënti def damay ñëw déplacé wu ñëw ba sa kër seet si la masawu la jaale yi la sa sœur bi génn àdduna ndeysaan ma it loolu rëy trop trop trop trop trop trop si man parce que ku waxoon sister Françoise Hélène Gaye ak Californie dinañ dem ba toog ah du ma ko gëm mais yàlla suñu borom rek mooy defar Euh, ma jéggalu ko si le fait que mu déplacé presque quatre km kilomètres and ànd ak délégation am ay frères ak yëpp ndeysaan euh, tamit Fatima Ndiaye sama sœur Fouta Tampi moom it mu déplacé wu depuis Wakaam gis ngeen depuis keroog ba léegi mu ngi ci Kaliphone ci rajo yi ci télé yi di ma défendre mais kii moom yaa ma xam kol këris yi doomu ndey la waaw lu ñu naan rek neddo bandum pour vous dire daal wax dëgg fa yàlla damay bàyyi rek Sister Françoise yeneen ngay nuyu parce que Kodas ñu ngi ñi nekk Thiès ñi nekk Amérique diaspora bi ñii di bëggee Françoise Hélène Gaye bëri nañu trop te soxla woon nañu vraiment Françoise Hélène Gaye ak Kaliphone Sall jour ñu dem ba toog kii sama grande sœur la lu ne jaar na fi nag wax dëgg fa yàlla euh, si la passé te ba mu fi jàllee it man maa ko jéggalu parce que maa doon yëkkati ay kàndu yu teg giniwul daan ko ko teg moom it mu jàppee ma frère mu jéggal ma lépp nag wax dëgg fa yàlla bëggatuñu revenir at ginnaaw dina seytaane moom fu mu xejul rek lay dugg mais nit ku bax la nit ku bëgg Sénégal la nit kuy Sénégal la pour Sénégal am ndam pour Sénégal pour am fi pour Sénégal sutura dox donc c'est ça Françoise rek ma bàyyi laa actuellement live le TV nga pour xarit am di jàmm yi. Hmm. waaw asalaamaaleykum euh, mbokk yeeg xarit yi followers Sénégal, Kali euh, TV xam ni manqué na leen ñu le yàlla bu baax euh, may

su sër bi nga xam ne laa li yoon Fatoumata Ndiaye mm-hmm. di ko bëggee gis taxawam taxawaay bu rafet mu taxaw ak yow mm-hmm. vraiment may ñu bëri euh, fit mm-hmm. dalal xelu ñu bëri donc euh, vraiment c'est pour man ma toog ak yéen tey di leen ñaax di leen ne bu ñu kenn jaxase kenn dugg suñu diggante te bu leen kenn xàddiloo parce que président man yaa ma ko gën a miin mais gëm naa ne

mandute. bu doon yéen ñi jël nañu micro yi commencé mm-hmm. wax. kenn mm-hmm. gisu kenn xamu leen. Mm-hmm. macha allah di la félicité tamit nga tëye vraiment. c'est tu un grand monsieur kontaan naa jërëjëf sister vraiment kontaan naa si yow. Eh, di feddaliwaat sama kóllëre sama diggante ak yow. di la nekk eh, ànd bi ñuy ànd. yàlla bu ñu saytaane jaxasewaat. Eh, dinaa nekk sa nga nekk sama mag. lépp lu may defati di la si laaj. Euh, lépp looy defati it boo ma si xeebul it mën nga ma si di laaj ñu koy defee comme ni ñu koy waxandee rek di yëkkatindoo di dóorandoo euh, bu ko defee incha allah say followers ak samay followers yaakaar naa ni dañuy bokk ndey ak baay gis naa ni say nit yu bëri nga am ay milliers de personnes nekk sa ginnaaw mhm. euh, bu may live dañuy partager dañuy commentaire say groupe whatsapp ndeysaan gis naa loolu dañ may woo partout dans le monde muy France Amérique Japon Sénégal dina man de si nitu Françoise Hélène Gaye laa bokk CODAS rawatina. Euh, mais dama lay kontaane. ndax vraiment li nga yàgg di défendre cause bu Françoise Hélène Gaye di xeex ainsi de suite. donc ma koy jaajëfal sunu borom tey la dogaloon ma gisee moom te gise bi wax dëgg fa yàlla dama si kontaan parce que ba mu yëkkatee ñëw ñëw na gis sama njaboot saa ñoom wax dëgg fa yàlla jam na ma. waaw jam na ma parce que déplacé wu na ñëw na ba sama kër man maa si des ma déplacé wu dem ba Thiès wala dem ba États-Unis incha allah fi rabbi fekk la foofu kon daal na ñu ñaan suñu borom rek seytaane bi nga xam ne fu ne la mën a dugg yàlla bu ñu seytaanee saytaane jaxaseti si àdduna yàlla na ñu mel ni ñu bokk ndey ak bàyyi euh, liggéey pour un Sénégal meilleur ñuy dóorandoo di yëkkatindoo euh, incha allah rabbi kenn gënu la wax dëgg fa yàlla te combattante nga ku xamul Françoise Hélène wax dëgg fa yàlla muy jàmbaar bi mu jàppee ba léegi bàyyiwul rawatina nag si réseau yi euh, nit bu koy yeb daa fekk taalul Facebook am mais nit bu ko tëgg suba rek mu tëgg la ngoon waaw fit bu mu am moom dama koy rafetlu parce que yombul nga nekk jigéen affronter réseaux sociaux parce que réseau sociaux lu ne nga siy gis coalition la gars di def di la saboter di la xeex di la karti kartal mais yow da nga siy dëgër da nga taxee ba léegi jam bu ne jëm ne la ko jam mais ba léegi yaa ngi nekk une brave dame taxaw vraiment loolu dama la si sargal ne la si encore fi nga nekk foofu la dara bum lañ ñor lu dul Sénégal euh, sista nga comme ni ñu ko waxee yaa ngi jëm mag li passé passé na mooy ay détails bu si dugati say followers sax soxlawuñ ko boo ñëwatee waxal lu jëmale Sénégal kanam loo gis Amérique yéene nga ko Sénégal ñu xool jeunesse bi nu ñu leen jàppalee pour ndaw ñu bëri am liggéey pour Sénégal nek Sénégal comme Amérique comme France comme Europe bu ko defé inshallah ñun ñoo wara mëna jël relève bi ci mag ñi ñun ñoo wara mëna conscientiser ndaw ñi ñu ñuy déglu parce que gis nga ni rek ñu ngi wax ya plus de 1000 et quelques personnes tay yombul tay c'est très rare nga gis nit tal Facebook 200 personnes sax diko sétane c'est rare rawatina nag bu ñu talé suñu Facebook nga xamné suñu télé la mm-hmm. même télévision yi ñun ñi sétane ñom journalistes yi dañuy def émission yi gën a nganda yi du am mille personne ci baat bi ay 500 la ñuy am ay 700 ay cent ñun ñu ngi gis mais bu benn Californie di wax des milliers de personnes toog ci baat bi di seetaan mayu yàlla la. Françoise Hélène buy wax des milliers may Fuuta Tampi tamit ku ko xamul dégg nga moom it ci xare bi mu ñëw si di xeex lu am solo jamono jii dañu nekk ci monde digital ñun lu ñu yor ku ñu ko xeebal ñun xeebaluñ ko suñu bopp ñun xam ne ñun lu am solo lañu yor. ay nit nak buñ ñu bëggé yàq façon côté bu ne la waxé ak ah, Françoise bi ki doon wax li ki doon ki di jema diaboliser mais bul lijjanti li nga doon wax demb ba koy wax da ben xex bo nekkon mm. nekkatoo si xex bobu ñëw nga si xex bu bes mm. fu la neex faral fu la neex nekkal fi kenn moomul kenn fo sentir dem demal pitch ci popam mom mom limu mom garab bu ko neex day tak waxuma la ben sister bu am quarante et quelques années mm. do ko ne fi ngay xol fu mu sentir fofu la jamm ji nekk falay dem fu mu sentir foofu la dëgg bi nekk foofu lay dem man loolu dama la si naw sa courage sa njàmbarte ma bàyyi la rek nga wax gars yi dernier mot balaa ñuy ñëw tamit sa si si sa euh, euh, Fatima Diagne waaw dernier bi mooy euh, ñun ñëpp Sénégal moo ñu tax a jóg ku ci nekk nag am na lu la yàlla defal Californie yàlla moo tëye réseau yi mm-hmm. jamono ñu toll nii loolu la yàlla dogal man xolu ci ñaar nekkul ci man dañu jàppale Californie la am talent bi mu am bokkul ak man talent ba ma am on se complète mom côté bi muy xeex wa Kodas ak ñepp ñi bëgg bu duggé la vie ñepp ngeen jappalé man suma xolé xoolee bu ma toogee ba wara dugg euh bëriwul dama koy jéem wañi parce que comme yaa ngi fii mhm. soxlawul may dugg donc li ma mën ci bind ak mhm. ci organiser ci souf mhm. ma koy organiser yow nga nekk suñu porte flambeau Fouta Tampi ngeen jël relève parce que yaa leen di xale ba mu fiy ñëw dama fi nek par défaut mhm. parce que lolu il fallait am ñu taxaw mhm. ñew ngeen légui c'est la relève adina non lay doxé continuité la mhm. il faut nit ñi di joxé le témoin man ma ngi ci gannaaw je vais organiser je vais planifier yeen ngeen nek les faces incha allah nekk en avant mhm. <laughs> mais mais mag bi mag bi bu nekkee sunu ginnaaw rek ñun dañuy am fit. parce que yow moom ko nekk si ginnaawam di ko waxeel nii defeel nii rek moom. Eh, ñun duñu tiit duñu ragal. te yow xam nga moom am nga combattant yi mat combattant. exactement dëgg fa yàlla di ñu gën di complété di ñu gën di jàppale. ñu continuer di xeex xeex bi réseaux sociaux la. du xeex pour pañante amuñu jot bi. du xeex saagante amuñu jot bi. xeex pour wax dëgg. rien que la vérité dëgg rek te yàlla tax ku liggéey ñu ne liggéey nga ku liggéeyul ñu ne liggéeyoo ku bëgg a yàq Sénégal ñu ne kii mu ngi bëgg a Sénégal dëgg rek te yàlla tax ku ñu bëgg a mere si loolu bay boo nga mere ku ñu bëgg a rey si loolu bay boo nga pare pour rey ñu sunu làmmiñ moom kenn munu ko téye fit la ñuy doxee incha allah rabbi donc c'est ça gars yi kontaan nañu ñu ñëw si si sa bi jàmbaar bi lion bi sama jigéen sama xarit sama lépp muy Fatimata Ndiaye Fouta Tampi ku ko xamul dégg nga Fatima Ndiaye tey nga dajeeg Françoise Hélène Gaye si biir kër Kaliphone Sall loo wax auzu billahi mina seytaani rajim mm-hmm. gannaaw ba ñu sante yàlla jub ci sang-sang di Seydina Muhammad sallallahu alayhi sa sallam sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi waaye di sant mm-hmm. suñuy kilifa aussi di sant mm-hmm. tamit fromose yi muy seetaan waaye kali mbaa xam nga ne ku gërëmul nit doo gërëm yàlla te amaana sénégalais dafa baaxoo lenn foofu nit defal la dara wala defal la teraanga ñu mën a wax nit ki François Hélène Gaye c'est la première fois mu gis ko mais dañuy wax téléphone lu bari bay defante appel vidéo man man naa sama kooku sama con euh, sama confidente la. Mm-hmm. parce que man li ne si man xam. parce que mm-hmm. mosu ñu woon a boobu. Mm-hmm. moo tax moo ko gisee tey mbégte ak contentement la. waaye mu def lu kenn deful. ndax ku deful ku def lu kenn deful nag ñu waxee la nu ñu waxeewul kenn. ndax nag ñiy bokk ñii bokkal xeex bi. bari nañ loolu. donte am nañu woote. François Hélène Gueye ba Thiès a jógee ci naaj bu tàng jër ànd nga xam te ne délégation am ñoom baaba mhm. ah ak ay nitam ñu mhm. uniquement pour ñëw masawu li nga mag mhm. ah, ci encore ñëwaat encore di la masawaat ci fi nga génn te pourtant tey nga génn te ci taaj bu tàng bi la ñëw kon ak defal sunu borom mais war ngaa mën a ndax nit balaa nga xam sa tegu sa te bi nattu tego sa kaw mhm. boobu laa xam ne ne Kaliphone Sall tey ministre lu mu amul président lu mu am yow am nga ko balaa moo neex tey nga am temps nga dugg fi li nga xam ne mooy Facebook sa photo la ñëpp a jël justice pour Kaliphone Sall ñu def ay groupe whatsapp di la sant di la jàppale ak tout hmm. am ñoo xam ne man dañ may woo hmm. ñoo xam ne xaw ma leen woon ci sa tëj bi laa leen xam tam tamit doomu yëmbal bi tamit hmm. ñu koy sant di ko sant di moom demba munoo muy ku ñàkk ki ñaan man demba demba après nga ba yëmbal moom it ndeysaan toog si réseau yi kali kali kali kali demba dina ñëw léegi man bi nga tëjee ah. laa koy door a xam man si laa ko xam si laa ko découvrir mais ki laa ko jàpp moo tax sànq bi ñuy wax may wax ñu ne ma mu ngi fii mhm. muy ku baax mais kan mhm. sant yàlla war na jàmm bu baax a baax a baax a baax man da tuye mon frère ñu bëri nañ naan lu tax yow nga jël xeexu Kaliphone bi yanu ko ana famille bi famille ñoo gën ñëkk a taxaw Kaliphone balaa man may taxaw parce que ñoom ñoo ma dooleel te wax la sama diggante Kaliphone nee naa la Kalidou Babali moo toog nii mhm. ak Fatimata Ndiaye du Kaliphone Sall mi nekk followers mii nga xam te ne moom mooy xeex mhm. du Fouta Tampi bi nga xam ne moom mooy xeex mais Kalidou Babali ak mhm. Fatimata Ndiaye ñi nga xam ne ñooy xeex ñoo ànd ak François Hélène Gueye mhm. muy sunu di sunu sœur te ba mu nekkee ci xeex bi ba tey dara ñaaw dara mas ta ñaaw du question lu mu toog xam nga man maamu sama bopp luma bëgg wax ni dama koy wax parce que man jox moma lek jox ma mu lek mais yalla dafa bëgg dëgg te yalla tax ku melni François Hélène Gueye buñ ko delloowul man la japp ñu ko ñu xam ne ñun duñu ay gor François ma mhm. xam nga ne Umaro mën ta jaay maye bakkan mën ta mhm. jaay bakkan bës ni gëtay man jox la sama bakkan bi jaay naa la barke yonente yàlla mu nek nga nek nga soldat François nek na sa soldat ndax sa njàmbaar man it ak ma ñëk déclarer rek mais japp len ni califon Sall nek na talibé François waaw donc muy grande sœur muy monument dëgg fa yalla ki bu ñu ñëwé nek wetam dinañu gën di jàngal nan la ñuy defee réseau mhm. nan la ñuy waxee parce que ñun motuñu mhm. te rawatina ay ndaw lañu xëy na parfois ñu wax di juum mhm. moom mun nañu di woo di ñu ne nii ngeen war a waxee ak nee kon jàppal ni tey euh, jox nañ la suñu bopp nga nekk suñu mag suñu conseil suñu confidente euh, boo gisee muy ñaaw rek woo même bu ñu en plein live woo nga dagg live bi ne Kaliphone mu ngi ñaaw. Mm-hmm. bu ko defee dinañ la ko may devant tous les sénégalais. Mm-hmm. ak devant suñu famille. Mm-hmm. parce que li nga def dafa reuy si ñun. parce que mënoon nga tok ne réseaux sociaux rek la ñu xamante. Euh, nga téléphone rek yem.

kuy kuy yàq mm-hmm. sama dugub ndumbu sin mm-hmm. man dama si am contentement mm-hmm. dama si am fierté parce que gis naa ni bunt yu ubbeeku na bunt yu ubbeeku nag du alal du xaalis mais nit ñi ku la euh, jéppi woon démb sax day ñëw tey yërëm la ànd ak yow man loolu dama ko gis nee naa leen depuis prison ba ba mu fa nekkee wallahi wal azim jeune yëpp Kaliphone Kaliphone bu ma génnee cours e eh, Kali Kali kaay ma fóotal la sa yére kaay ma fóotal la sa dàll te ñooñu defaralu ma leen dara ay pas dañuy ñëw si prison bi ne ma Kaliphone yow maay sa fans numéro un keneen ki ne déedéet man la de maay numéro un gars yi di werante wallahi wal azim te ñooñu mësuma leen xam kon fu ñu nekkoon benn rek si dëggu dañuy ñëwaat tey gën a continuer si dëggu dëgg rek te yàlla tax bu ñu nit di bëgg nañu bëgg si nii bu ñu nit di bañ nañu bañ si nii jàpp leen ni daal comme nu ko politiciens yi di defee

mu ngi si réseaux sociaux yi mu ngi si TikTok bi mu ngi si Facebook bi depuis ma nekkee Paris laa jékki-jékki rek gis muy jël samay photo di ma ne Kali dama ko bëgg Kali dama ko bëgg ba yàlla defee ma ñëw ma abone si moom ma bindante ak moom message ma laaj ko fu mu dëkk mu ne ma yëmbal un jour ma ne damay pare pour seeti ko fekk mu ngi taw ma woo ko ma ne ko dañ daje commissariat Thiaroye jour boobu yaakaar naa ni police Thiaroye la ñuy daje à deux heures du matin ñu egg foofu fa la connaissance amee te kii mais gis ngeen sama moromu góor yàlla la bu ko neexoon ne waaye Kaliphone bi dama ko lijjanti mais yëmbal la toog di ma bégee bu ma woowee def appel vidéo ne booy yëmbal yëpp te kilifa la ca yëmbal parce que jeunes yi nekk foofu yëmbal yu bëri dañ ko fa jox nopp di ko déglu parce que tamit wax dëgg fa yàlla foo la juddoo yaroo màggee ma woo ko vidéo booy di ma bégee muy góor ñi muy jigéen ñi saa yi defetee live ne Kaliphone ba ma génne sama fami ne ma yow da xam Demba Moulon mu ngi ci kaw kooku xam naa ko gis naa ko dem naa keroog gis nañ mu ne ma chaque jour day woote chaque jour mu ngi lay défendre ndeysaan ba dégg naa sax am na benn femme euh, yàlla na ko yàlla dimbali baal naa ko muy Selbé Ndom dégg naa wax na si man mais baal naa la si xol bu sedd guy parce que man Selbé Ndom ana yow ana man xaw ma la wax dëgg fa yàlla sekkuñu fooy jékki-jékki di ma yéene lu bon ba di saaga sama yaay bi tëdd àllaaxira mais amul solo mooy comme ni ma koy waxee rek buzz xam nga ñu bëri tey dañuy naan boo bëggee siiw tooñal ku siiw comme ñëpp xam nañ ne Kaliphone dafa nekk au top ku ne di langaa mu am Kali andil Kali ba yenn nit ñi ñu invité si plateau tele yi euh, euh, di wax si Kali du ma leen tontu man ku yaakaar ma toog sama réseaux sociaux di wax si yow non di nga jaay glace aw ma jot bi man aw ma temps bi man sama combat pour Sénégal am ndam la sama combat pour Sénégal jëm kanam la toog fii di tudd du wala di tudd Kumba wala di tudd Paate ku ko yaakaar di nga laay vingt mille de fois du la tontu man j'ai pas ce temps temps bi ma amoon toog si réseaux sociaux Momadou bu waxee ma génn tontu Kumba bu waxee ma génn tontu wax leen ba yëwmal xiyaam ku ñu invité plateau tele na ne Kalidou c'est un drogué Kali dëmm la Kali jinne la du ma la lijjanti man sama komba mooy un Sénégal meilleur Sénégal am jàmm Sénégal am salaam rawatina nag pétrole ak gaz bii di ñëw incha allah ñu gis dëkk sous région yi dëkk yi bëri tàq nañu ñu def le tout pour suñu dëkk bu mu tàq parce que ñi ko bëgg taal jege nañu ñu ngi si fenêtre bi taxaw bu ñu xoolee tuuti rek ñu taal ñun loolu la ñuy xeex parce que ay milliers de personnes lii Facebook la bu ma demoon léegi TikTok foofu it milliers de personnes bu ma demee YouTube it milliers kon ñun nekkatuñu ay nit yoo xam ne dañuy toog di dugg si ay détails amatuñu jot boobu ku ñuy xaar si détails di nga xàtti aw ma jot tontu benn Mamadou aw ma jot tontu benn Paate kali bu démb ak kali bu tey diamétralement opposé liggéey pour un Sénégal meilleur Demba Moulon doomu yëmbal bi nga sànni si kàddu rek sénégalais ngi lay seetaan. salaamaaleykum adduna salaamaaleykum jasmara demam lolo doomu yembal bi li dama siy fier contane si bu baax di sante telephone di ko ñaanal jamm di bari di sante sama yaay ji kam jigen mom moñu jur suñu yaay la mm-hmm. di gërëm ñep di contane tammi bu baax nee kam la lu may rek xex bi nga doon xex tammi do ci wéet mm-hmm. yow yaangi ngi dëkk Dalifort ñu ngi dëkk yembal mm-hmm. mais dafa lu tax ma bëgg la yalla suñu borom moy gis nga gisal nit rek bëggal ko sa bo te tammi wax dëgg yalla bu ma ñëpp du tax ma bayyi telephone direct laa wax yaa yëmbal yëpp a ngi may dégg. ndeysaan waaw yàlla moo tax ma gis Kalifeu rek bëgg ko. ndeysaan sama xol moo fees daal yàlla ko yàlla defal jàmm mais yéen a néeg la. Mm-hmm. borom a si fanaan. dëgg la dañuy bàyyi un deux trois di wax kaso. Mm-hmm. fee jombul kenn. wallaahi ay doomu aadama ñoo fa tëdd. ndeysaan mm-hmm. ñoo xam ne tëdd nañ ba seen waajur génn àdduna mosuñu leen teg bët. nañ bàyyi un trois di pelante ni wala di ko dugal kaso. barki yàlla ragaluñ fi jëm de raa bi day jub xocc yal na ko yàlla defal jàmm magam bi génn àdduna yàlla yërëm ko xare ko àjjana yàlla may ko xol mu bëggee jooy xol bi tooy na yàlla rek moo def mu gis ma rek bëgg ma wax dëgg fa yàlla am na si ay morom ay milliers de personnes euh, sama whatsapp sànq ba léegi muy appel normal muy whatsapp nit ñi dañoo woote ba sonn euh, may remercier tamit Euh, maam jaara femme wax dëgg fa yàlla sànq y a même pas trente minutes woo na ma vraiment ba ma yëkkatee mu ne ma Kaliphone maa ngi doon sax suivre sa live sànq euh, dama lay jaale ba ma yégee keroog rek am nga dëj euh, def naa le tout pour xool nu may jotee sa waa kër mais jotuma leen mais comme yow am naa say coordonnées woote naa si tamit jotuma la mais gis naa ni vraiment tey yaa ngi si liberté dama lay woo jaale la te dinaa def le tout déplacé wu muy tey wala suba ñëw ak sama délégation ñëw jaale si la loolu ma am si contentement parce que maam jaara faam yàlla dafa dogal nii rek la ñu xamante si réseaux sociaux euh, bu njëkk bu may live da doon dugg sama live wax dëgg fa yàlla ba benn jour ñëw na sax sama whatsapp euh, mu ne ma Kaliphone yow de Ousmane Sonko tax ma lay seetaan ma ne ko ah bon mu ne ma wallaay moo toog sax ne ma est-ce ngi seetaan Kaliphone benn jour mu dugg sax sama live Facebook ma ne ko maman maam jaara faam da nga ne Ousmane Sonko daf may seetaan mu ne yow rek lay naa mu ngi kon euh, ragal pété day xañ a wërsëg xam na ni bokkuñu camp mais gis na ne Kaliphone mu ngi si ay jafe-jafe sëram génn na àdduna mu teg fële politique Kaliphone nekkoon na en prison mu teg fële politique ne Kaliphone yow sama doom nga ay nit sax dañ ko ne yow Mame Diarra Fam lu tax Kaliphone du la attaqué mu ne Kaliphone sama doom la te loolu dolli naa ko seede bi sànq ne naa ko maman sama yaay nga parce que li nga ma defal rëy na bu ko neexoon Mame Diarra Fam def comme yeneen nit ñi parce que bëri toog nañu ñu bëri toog nañu téye seen i ay déplacement mais alhamdulilahi rabbil ku ñëw yàlla ñëw na ku ñëwul it yàlla ñëw na lii daal àdduna la koo yëg mu yëg la koo tin mu tin la alhamdulilahi rabbil alamin may santaat di gërëm maam jaara Fam maman de la nation maman député du peuple yàlla na la yàlla defaral jàmm muy borom caaro yi kontaan naa si yow woo bi nga ma woo sànq wax nañ pendant vingt minutes sant naa la gërëm naa la te it sa njaal jot naa si te ne nga di nga déplacé wu dam la ne sax jaru ko nga ne ma di nga ko def waat si sa sëriñ mané ne bu ma sañoon sax pour ñew mais yéene bi egg na sant na la gërëm na la nit bu défé lu baax mom nañ wax lu baax parce que politique mën nañu and baña a bokk sax camp mais bu nit nekké ci nakar nañu tek politique fële xam ñepp dinañ jaar ci nakar ko si gis tay papam dina genn aduna ko si gis yaayam dina genn aduna ko si gis domam dina genn aduna ko si gis jarbatam dina genn aduna ko si gis magam dina genn aduna ko si gis raqam dina genn aduna kon Sénégal lu mu tuutee ñu nekk 17 millions d'habitants kaay leen ñu bëggante kaa leen ñu politique mais politique autrement pas politique de eenante pas politique de kii de bokkuñu camp fu ñu ko gis dañ ko war a rey kii de yéene wuñ ko jàmm kii dafa war a dee si kaso bi kii dafa war a torox loolu dafa war a jeex parce que bi ñuy wax Sénégal pays de la teranga Sénégal dëkk jàmm Sénégal dëkk salaam loolu suñu maam yi dañ ko béyoon ak suñu papa yi ngalawaay ñun bu ñu ko yàq nañ leen continuer bëggante politiciens war a ñu mën a jaral ñuy reyante en tant que ñun muy rawatina nag ay banlieusards rawati nag ay sénégalais sax laa mën a wax nañ leen bokk ndey bokk baay lenn rek ñor ñu mooy un Sénégal meilleur bu président liggéeyee ñu ne ko jërëjëf président bu opposant liggéey ñu ne jërëjëf opposant Sénégal daal di jëm kanam Sénégal daal di am ndam si sa Françoise Hélène Gaye damay bàyyi rek nga daal di tëj xam naa ni nga jox gars yi rek di incha allah xam naa bientôt nga dellu sa réew mu mag ba Amérique Euh, le temps Inch'Allah, nous ñu continuer sur bi réseaux sociaux Inch'Allah, incha waaw donc euh, followers nous ñu ngi leen di bëggee di sant yàlla ba ñu mayee jotaay bi nga xam ne euh, njëriñ kese ci gis mooy ñu wone exemple que ni le Sénégal est au-dessus de tout et que nous on est des frères Sénégal ben peuple ben but ben foi Nous avons am différence ci ni ñu bëggee defaree Sénégal mais bu mu tax ñu xiiroo. bu mu tax ñu ŋaayoo bu mu tax ñu ñu euh, tojante bopp parce que in fine ñun ñëpp ay mbokk lañu xam naa ni fi nga dëkk nii hmm. ñàkkul bu ñu gëstoo dañu gis sama benn mbokk boo xam ne yàgg moom noo màgg ndaw fa ma dëkk hmm. noonu donc ñun ñëpp ay mbokk lañu c'est une grande famille dañu hmm. préserver li nga xam ne héritage bi nga xam ne moom la maam yi bàyyi fi comme ni mu koy waxee toujours suñu maam yi sëriñ yi ah, kilifa aada yi intellectuel yu mag yi fi jaar ñoom ñëpp dañu doon waxante Senghor ak euh, kii Euh, Senghor ak Wade mhm. dañ doon wax mhm. tooñante mhm. mais du mës a ñaaw après dañuy toog waxtaan naan café demalante donc ñun nañu suivre exemple boobu te bàyyi wax bu ñaaw bi def lu ñaaw yi ku ci nekk nga bàkk nga jaay sa mbër wari sa mbër wane lan moo tax moom moo gën te mën na ne parce que yàlla may nañu xel du dëgg donc maa ngi gërëm bu baax sa xarit bi Demba kontaan naa ci yow gis naa say vidéo yàlla la yàlla sàmm yàlla fay la sa xol yow ku baax nga te nga xam ne ñun ñoo bokk xeex bi Kaliphone mm-hmm. ni nga ni nga bëggee Kaliphone tax man ma gën daw léegi désormais dama lay suivre waaw parce que loolu ñu bëgg nit ñoo xam ne seen xol dafa set mm-hmm. yaatal mm-hmm. yéen ñëpp a jàmm parce que loolu mooy li nga xam ne ñun moom la ñu. jërëjëf jàngal jërëjëf vraiment te du ñu tëj te nuyu ma sa délégation dañ fee toog ay kilifa. ñi nga àndal ak sister yi si ginnaaw. Fathiam Fathiam moom borom kodaas mu may live muy partage di commentaire fu Françoise di dem moo koy gunge ak sunu frère bi. Elzo Baba Baba booy sama personnalité la communication uh-huh. baax baaba baaba ñëwoon ni nuy gars yi dafa am solo ah baaba ah, ah, ah, animateur la ah DTV ah loolu du eh, problème eh, yow xam nga ni eh, boobu wooye DTV damay ñëw sànq ba léegi journaliste yi may woo mais yow moom wooye duñu mën a rejeté waaw baaba baaba ngi ni François Jolène Gaye kii mooy baaba sëñ baaba kon ñu bàyyi la nga sànni rek ay ca maa leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp mm. wax euh, liñ naan ñu ñu ñuy bokk ñi ñi ñi ñuy dëbb ñooy bokkandoo xaw ma nag lan la ko olof jox ñooy nax doon jox moom mm. lañ ko olof njaay waxee ñii mm. euh, la rek mm. nañ jàppante rek waxante lu baax parce que maa ngi déglu Californie sànq li muy wax mais c'est rare kaa lu baax. Mhm. waaw kon xam nga ne kooku waxul kaay la ñu taal réew mi. Mhm. waaw mun ngeen a bañ a bokk camp mais na ngeen di xool nu mu gën a rafetee rek. Mhm. ngeen daal di koy defee parce que yéen ñëpp yéen a yéen yéen bi. waroo leen onk waroo leen laajte ku leen onk. parce que politique dafa métti parce que parfois da toog sax. ci daggal la saaga ndey wala waxal la loo xam ne ni amaan du la neex wala du neex say mbokk waaye boobu ba tey yéen jàpp tawba yi nga gis ngeen tey François Hélène mm-hmm. ki nga xam ne moom mooy Californie fekk Fatou Ndiaye fu tàmp bi mm-hmm. yéen ñi nga ci politique bi war ngeen xool ci loolu quoi mm-hmm. war ngeen xool ci loolu di waxante li nga xam ne nii loolu mooy lu baax comprendre nga parce dañuy wax rek mais man moom Californie li ma gën a neex ci moom mooy benn jour maa ngi fàttaliku dama dem Marcouville Côte d'Ivoire. Mhm. am benn euh, sama benn xarit maa ngi koy nuyu de passage presse mi ngi seetaan. Mhm. mu ne kii li tax mu neex mom moy moy du dellu ginnaaw. waaw bu fekke yow da ngay défendre bu ñu la nee hoo. nga daw kon nekkaloo Sénégal. xeexaloo Sénégal waaye lu metti metti rek. yaa ngi taxaw di représenter Sénégal di jàppale Sénégal. kon ñing lay ñaanal. kala ko won naa rek da fi jàppale ki sama réew ma. jërëjëf nekk sama yaay. ak tey dama fekk nekk sama yaay Fatou Ndiaye fi ko tàmm. jërëjëf jërëjëf euh, Nafi Santana Nafi Santana ñu lay sant di gërëm say followers la ñu ñoom Nafi Santana gaay ñoom ambassadeur ah, ba jaxate tamit woo na ma sànq ndeysaan moom it nit ku disponible nit ku vraiment sant naa leen gërëm naa leen Anita Diop yow mention spéciale ay yow gis naa say publication dina yaatu li dinañ ko defaat kër waaw muy gars yëpp yéen a ma gën a xam pour un Sénégal loolu loolu benn problème sànq ba léegi journaliste yi kali kali yow laa bëgg a invité ngoor kali yow lañ kii ma ne leen may leen ma tuuti rek xam ngeen foog ñu dallu tuuti eh, bëgg nañu tamit am fu ñu dugg Elzo sëñ Elzo Elzo kaay sànni si ñaari kàddu kilifa nga ñëwal rek ñëwal ñëwal ñëwal ndeysaan ñëwal nuyu ñëwal nuyu askan wi waaw Elzo ndeysaan non non non li nga wax yëpp baax sénégalais déglu nañ la Elzo bon ñun daal ñu lay remercier bu baax baax jërëjëf jërëjëf di la di la sa sista bi nga xamante la moo ñëw ñu ak euh, suñu présidente mhm. la bi nga vraiment depuis mhm. mu ñëwee ba tey mu mhm. ngi di xool lu Sénégal manqué mu koy doxal vraiment tey ji sànq bu mu ñëwee dafa jugee fee rek li mu doon def rek ne direct ne ne maanaam. Kaliphone faaw ma dem jaare ko xool ko tey ko neexoon loolu mën na ko ci bañ a fekk bu xooloon ci ginnaaw xool mais xamul leen loolu parce que xam na ne nit kese nga moo tax nan bàyyi di di di di di jaboliser ay ku fi ñëw xam ne nitu kese la ku ko dégg xam ne nitu kese la dama yërëm yenn saa yi may wax ne far farmata Fouta Tampi mm. ni mu jàmbar dama dama ko yërëm dama ko yërëm moment yi metti ma ne kii ko ñu mm-hmm. lu nekk mi ngi doon lu metti mais sant yàlla sant yàlla ndax lépp na ñoo xam ne suñu jotoon ci loolu sant ñu mm-hmm. lay remercier bu baax xam ne mm-hmm. gars war a ku nu ku nu a jàppale la gars li ngeen di def bu baax a baax ñii seen ginnaaw di sacrifier seen bopp ngeen génn jàppale leen ku mel ne ay François Hélène Gaye ay Californie mii li muy ñu sacrifier tu jóge ba France hmm. Tampi hmm. yak avenir Dom Yak hmm. ci ndax ci ay politique solo yo la jotewul dara politique di leen remercier ngeen gessu di nakam ñepp am kon ki di ngeen ko wara a ngeen ko ko bu baax baax ci ak parce que tamit dal ah mu France def mais ñi lay sant la gis la te dara bi lay fay sa xol ñu ngi lay remercier di remercier bu baax am loo bëggoon doole voilà ah, jërëjëf ah, waaw bismillah comme tamit xam nga comme ni ñu ko rek ah loolu si nag yëpp xajul si kii ñoom Ibou Ba ñoom Ibou Ba ñu ngi leen di gis ñoom it ñoom ay nitu François Hélène Gaye leenu kii sunu benn mbokk la moom it wax dëgg fa yàlla dafa jóge ba Fuuta ñëw Matam donc mooy sunu mbokk Haalpulaar donc dama koy bàyyi rek mu wax si tuuti kàddu ah, waaw mais ngeen baal ma mbokk Sénégal mbokk àdduna mhm. Ah, comme sama xarit sama doom la et puis sama goro la nag. Mhm, sama goro ndax rakam laa takk. Mhm. Ah, ma sœur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Françoise mhm. di la nuyu bu baax a baax a baax di la gën a dénk Californie ak ñii ñoom Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. léegi nag pour toujours. man maa tudd Amadou Fall ñu gën ko xam ci Amadou Gaz nekk foofu ci Matam. Ah, man maa taxawoon di xeex ci réseaux sociaux yi.

man sama kàddu démb mooy sama kàddu tey Kaliphone Sall Khalidou Babel Sall mm-hmm. alias Kaliphone mm-hmm. Amadou Fall gaz depuis Matam dama ne famille Kaliphone ñoo fi toog la ma waxoon ca njalbeen et jusqu'à présent loolu lay wax mm-hmm. euh, François Xavier dama lay jaajëfal di la gërëm ndax dégg naa kàddu yi kii wax dégg naa kàddu yi sama jigéenu Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi wax ah nañ jàpp ni ñun njëriñu Sénégal la wax mais pas defetu Sénégal. Mhm. alors que yéen da ngeen jóg pour njëriñu Sénégal. Mhm. donc combat ñu ñëpp ñoo ko bokk. inshallah ñëpp ñoo ko bokk. yéen nekk leen ci kaw ñu ñu nekk ci suuf. Mhm. ñu gën a jàppante. inshallah nañuy gën a nemmeeku wante. man nag doomi Cuba la Pire la aw ma tànk ginnaaw. jërëjëf amul ragal. jërëjëf Californie. man ak yow ba géej gi fer. inshallah bandiraaɓe Haalpulaar. Uh-huh. bandiraaɓe Haalpulaar en. kaalidu baba el sall alias californe nani pire cubballo futanki yummum bamum nani seeko umar innitani ko o moni mi ɓoyi haadi ɗum hande o moni aduna neɗɗo yo yiɗan ɗum jam wona wiide a yiɗan neɗɗo o musiba ha tampoya janngo non non allah tagi yimɓe kono fondani te fondata ha abada no juuɗeɗe certiri ni honoon yimɓe certiri kalifon tampata cheikhu oumar innitaniko hay sa yiɗi ndum bonani koye ma artata qe ce que le ko mbimi ko hande oɗo ñalom ko allah hodiriyam ar mi tawtore oɗo ñalom mhm. hande ko allah hodiriyami e ar mi tawtore donc ko mbimomi hanke hecen ko kañ fon sal yo allah reeno reeno ko takkima e ko yadata siglam allah hokkuma judde balɗe moƴƴina battali futankoɓe foof noon calminama kali fon nani hamin ɗo joddi mhm. mi wino on so allah jaaɓi inchallah rabbi mhm. kali fon ko joni mhm. allah jaabimi duwaw yo allah yoɓ moƴƴere كاليفورنيا انا فوق فودان كوبي باتني متوا كم كي فرانسوا زيفي فوت فارمان جاي فوت تبين يو الله رامي ما من جا فوت ان شاء الله جاي ان شاء الله من جا في ادم دوا من تال من جا فوت دونك نا فوت ان كوبي Euh, du matin au soir en amérique en france pas partout dans le monde Californie, il faut a fouta jewtiɗon e fuutankoɓe jewtiɗon e de ɓaɗoɗo moɗon te inchallahu rabbihi minen de Gabonabe, no telefina, e, e Maroc nabe, no congo nabe, na minen min gala ko wona foot, e fouta dow fouta yes. Inshallah rabihi, gande kalifan salle, nani ara fouta te somin gari mi yaade fatima ndiaye fouta tampi e mon nganndu fouta ma dillu solle jam komin sukaaɓe to somin ngari tan mamin kollonne ko komin fuutankooɓe te komin fuuta min jeyani kay inchallahu rabbi on jaarama on beltanama waaw non loolu loolu loolu xam nga ni xam nga ni li ma doon wax léegi sama mbokk Haalpulaar yi euh, ñu bëri dañ may woo euh, partout dans le monde si diaspora bi rawatina ay pa ay maire dina ñoom ay fuutanke lanu mais ñu ngi si diaspora donc Kaliphone ñun bëggoon nañu yow ngay déplacé wu di dem Fuuta di conscientiser sa ndaw ñi sa jeunesse bi parce que tey say mbokk ñu ngi foofu donc loolu laa leen promettre incha allah dinañu dugg Matam dinañu dugg Podor dinañu dugg euh, Richard Toll dinañu dugg partout ci Fuuta rëy na ñuy waxtaan ak sunu ay ndaw waxtaan ak sunu ay papa waxtaan ak sunu ay yaay lan la ñuy waxtaan ak ñoom mooy suñu Sénégal ëllëg Sénégal bu baax rek la ñu bëgg Sénégal bu jëm kanam rek la ñu bëgg dara ñoruñu lu dul Sénégal bu jëm kanam te gis ngeen tey lu wër Sénégal mooy xeex ak xuloo yi te tey Fuuta daf see tey jege bomb bi mooy ñoom Mauritanie ñoom Mali yeneen dëkk yépp Fuuta daf si jege donc bu ñu jógee foofu dinañu ñëw ànd ak Sister Françoise Hélène Gaye moom it ñu dugg si dëkk suñu mbokk séeréer yi parce que ku wax xaalpulaar wax séeréer lu yàgg la waaw dégg nga loolu Fatima Ndiaye Fouta Tampi moo ko wax nee na am na nu muy demee ñun njëkkee Fatick ak yi ak ñoom Joof ah. Yoor ak mm-hmm. ak ñoom ah diaspora bi insha allahu bi yi eh, gars yi ñu ñuy soxla diaspora bi surtout diaspora bi mm-hmm. diaspora bi man dama xamul lan la leen Kalifone Sall defaral mm-hmm. ba ngeen teg ma fi ngeen man teg même bu ma ubbi woon léegi antenne bi ñii di njëkk a woote waa diaspora bi la bu mu leen woonoon léegi sama whatsapp numéro appel sànq ba léegi wallahi wal azim diaspora bi ngay gis ay appel lii yëpp ay rouge gis ngeen diaspora bi rouge rouge rouge Chine Amérique Japon partout xaw ma rek lan laa leen defaral yal na leen borom bi fay seen xol jàpp leen ni yéene bi ngeen am ci Kaliphone pour Kaliphone doon ëllëg ku ñuy waxtaane ji ci biir Sénégal maa ngi ci yoon yooyu xeexuma xuloowuma saagawuma tontuwuma mbappatuma wax rek laa mën te wax muy tegu si teggin saaga wuñu saaga waa waanuñu ku ñu saaga yi baal nañ ko liggéey rek pour un Sénégal meilleur jërëjëf si sa François Hélène Gaye jërëjëf sa mbok mbokk Haalpulaar bi jërëjëf ñu fi jaar ñëpp Fouta Ndiaye Fouta Tampi jërëjëf joko njal la famille on njaaraama on mbeltanaama haañene wonde so allah jaɓi demba mulon borom yëmbal kontaan naa si merci sama gars yi ba beneen live inchallahu rabbi jaa ngeen jëf